min alhaqi ja wa man yattaqillah yaj'al lahu maxraja wa yarzuqhu min xaysu laa yaxtasib wa man yatawakkal ala allah fa huwa xasbu mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu baax di leen siyaar nekk ci barab bu sell ci barab bu tedd muy barabu Cheikh Samba mbay Mbaye ci armeel yi nga xamante ni mooy armeelu euh, Saint euh, Saint-Louis nga xam ne ay kilifa yu bare bare bare bare bare ñu ngi fi xam naa rek dañ leen di bàyyi ak Baye Fallou Cheikh Samba Diarra mbay moom mu wax ñëw fas yéene présenté armeel yi kilifa yi nga xamante ni ñoom ñoo fi tëdd Cheikh bi lay siyaar bu baax waaw ku baax noo ngi ziar bu baax duubee sunu cant ak sunu ngërëm di julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yi nga xam ne moo di sang-sang yi di ñaan ci barke xul allahu ahad allahu samadun lam yalid walam yuulat walam yakul lahu kufuwan ahadun ndax gàtt na lool waaye waaye dawlu yu fi tëdd yëpp xaj nañ ci noo ngi santaat bu baax nag ci fekk ñeen fekk ci sunu kiiraay gi di sunu jëwrin di suñu bunt ci sëriñ tubaa di Cheikh Samba Diarra Mbaye Saïdul Abiyaati radiyallahu taala noo ngi ñaan de jéego yi ngeen def bi ngeen ñëw fii mhm. ba bi ngeen di dem yal na ko sunu borom bi fulal seen tele bi it li ngeen ci bëgg mhm. yàlla mën na ko te am na ko te mhm. moom mii de di Cheikh Samba Diarra Mbaye mën na kanamam mën gannaawam ba nag noo ngi ñaan ci kattanu sëriñ Touba yal na sëriñ bi nangul li ngeen li ngeen ma doon laaj nag ma bañoon ci sori dinaa ci tàmbali ndax damay wax ni man Cheikh Samba Diarra Mbaye aw ma ci frontière. Mhm. jëmm ji mhm. ren jii ngeen fi ñëwee sunu borom dogal na ne ren jii mooy téeméeri atam ci biir suuf. Mhm. ndax 1917 ku ko wàcc liggéey ba ren ji ku nekk xam na ni mooy téeméeri at. mu nag téeméeri at gii li Cheikh Abdoulahi Khadimu Sarr wax. yan na ko yàlla may gudd fan gu ak wér. di ko ñaanal it xalifaam di sëriñ Moustapha mbay yal na ko yàlla may gudd fan gànd ak wér di ko ñaanal xalifa Cheikh Saadiye di sëriñ Moustapha mbay moom Cheikh Saadiye yal na ko yàlla may gudd fan gànd ak wér barab bi ngeen ñëw nag barab bu neex xam la waaye barab bu naqadee xam la ndax góor yàlla yi fi tëdd ak nit yàlla yi ndax fii nu taxaw mag ñi wax na ni magu ndar yi wax na ni Cheikh Mouhamadou Moutada moom Cheikh Al bu mosaan dugg ndar yor yor gi dana taxaw ci tànk Cheikh Samba Diarra Mbaye ak Cheikh Makhtar gi nee na Cheikh Mouhamad Mourtada bu mosaan taxaw day togg si daal mu jël kaalaam gi teg ci tuñam yi def nii di rey daal ni cëy ñi tëdd fii maa leen ñe bon nag sant nañu yàlla bu baax ah, di dugal sunu sant nag ci bayt maam Samba Diarra gi mu naan alhamdulilahi ki may xamal bu wér te di ma may mhm. xéewal ci bar ki ni xëy jébbali dooni xéewalam maanaam sëñ bi mag bi lan la waxoon ci ci barab bi ku ku ñëw ndar si war ko siyaar waaw ndax sëñ bi dafa daan def bu nekkee njaareem mhm. nee na bu déggee ni ndar nga jóge dangay ngay dégg sëñ bi ni mu bëggee waaye daana ko bu génnee ci kees yi ba ni anak ki wax ni ndar la jóge woowa leen ma ko nee na bu ñu boo yegsee ci moom nee na mun la anu fan nga jóge nga ni ndar mu la yëg nga Samba Diarra de nga ni ko déedéet mu la demoo Ndar ndax tukki daa am yool te Samba Diarra lay mati ndax lu tax mu ni si Samba Diarra lay mati Samba Diarra moo ni ko Mbàkke wan ma sama àjjana ci Ndar mu ni ko Samba demal Cheikh Samba Diarra keroog bi mu ñëwee fii mag ñi wax nañ ni ah, keroog Ndar dafa mën ni yemal xeexam gu dekki ndax keroog nitu àdduna yi def naa ni benn wala ñaar nga ci gis waaye Samba Diarra gisul dara loolu nit yowmal xiyaam ndax ku ñeme di naan sëriñ bi moo di bàyyi ci baatin ma di doom ci saayir daal ni yow maa la sulan woon man nag alhamdulilahi rabbil alamin wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jazakumullah ah, maanaam kilifa yi nga xam ne ñoo fi nekk mooy njabootu maam Cheikh Fall ñu ne ñu ngi fi ak yeneen i njabootu sëriñ Tuubaa yi a indi ci ay loolu moom def naa ni du saayir baatin la mhm. ndax njaboot Cheikh Ibra googu nga tëdd seen barab dafa saayoon kenn gisatu leen woon waaye ci baatin benn sëtu maam Cheikh Ibra Fall mooy yeewu suba ñëw ndar wàcc kër góor gi Cheikh jóob gi nga xam ne Cheikh Ibra bu ma saan teg tànkam foofu lay daal sa sanc ba daal dee jiital waa kër baay Cheikh jóob daa dee ñëw daa di ne an amee armeel yi nu wan ko ki yore armeel yi mu daal dee ñëw xayma ci diggante bi ñu ko wax ni ka leer yi fa lañ tëdd nu gas gisuñ dara bi nu gasaatee ci la ñu gis jëmm yooyu te jëmm yooyu ba leen fi dencee nee na yàgg na loolu waaye keroog bi leen ji bi leen sullee seen mbalaan danoo weex tàll noo ngi jëmm yooyu nga xam ni nooy njaboot Cheikh Ibrahima ak njaboot Cheikh Abdoulaye Fall Ndar noo ngi dendal nag jàmbaar ju mag nekkoon ci Ndar di Cheikh Abdoulaye Dieye di bàyyi Cheikh Bamba Dieye ñoom ak njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall daana ko benn mètre moo dox seen diggante am na beneen barab bi ñu jàkkaarloo moom barab barabu kan la. barabu doomu Cheikh Saad bu la. Cheikh Saad Abi. waaw euh, sëriñ Cheikh Thioro Mbacké tamit moom mu ngi fi tudd di rakk sëriñ bi daana tamit barab bi am na nit ki yàlla bi nga xam ni dafa dëddoon àdduna ñëw def këram muy Touba Barzak muy Cheikh Abdou Lahad Seck dafa wàcc liggéey maanaam ci ñaari at. yal na sunu borom yokk leeram moom moo dëkkoon ci biir armée yi. mooy première tamit turandoo Cheikh Abdou Lahad muy Cheikh nu tuddee ko Cheikh Abdou Lahad Seck. ak ak yéen kilifa nga fi xamaat ci wàllu histoire. Amadou Ndiaye Mabey sëriñ As Kamara Cheikh Malamine Seck euh, ak ñeneen ak ñeneen bare na maanaam bu leen toppee sax duñ fi mën a jógee ndax fii ñi fi tëdd daana ko euh, ñi mës tudd benn la wala ñaar waaye ñi làqu ñeneen ñi noo ëpp. ban nag sant nañ bu baax di gërëm asalaamaaleykum waaw kon mbokk yi ni ngeen ko gisee muy ab barab boo xamante ni ay kilifa yu mag a mag ñoom ñoo fi nekk waaye li leen may li leen may lii nga xamante nii moom lañ am mooy jaamu yàlla leen may lii ñu am mooy liggéey leen may lii ñu am mooy pare pour bàyyi seen empreinte ci àdduna ndax subhaanahu wa taala bu ne indi jaal fil addi xalifa mooy ku ci nekk ci ñun xalifa bi yàlla nga ci kaw suuf waaye war ngaa laaj sa bopp lan nga fas yéenee bàyyil yàlla ci kaw suuf Cheikh Samba Diarra Mbaye wàcc na Serigne Touba gërëm na ko yàlla gërëm na ko yonent bi sallallahu alayhi gërëm na ko kon wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu waxtaan wi nin ko ubbee fii fas yéene nañoo dem ci euh, sëñ Ablaye Bamba Sarr euh, këram gën faa yaatal waxtaan wi ci Cheikh Samba Diarra Mbaye ak ay mbindam ak li nga xamante ni fa la féete woon Serigne Touba radiyallahu taala anhu loolu ñu ngi leen ñaan ngeen taaxirlu incha allah ci kanam tuuti di ngeen ci ñëw ak yéen euh, wasalaamaaleykum wa rahmatullah mi